nee na nag guddi gi nga xam ne mooy njëkk ci weeru koor yi ci nga war a yéene yéene ji dog fas yéene woor boo xasee yéene ci guddi googu nag moom te amaatoo benn ngànt bu lay tax a dog bu lay tax a ñàkk woor moom mën ngaa doy loo jenn yéene jooju du aajoo ngay teewluwaat yéene ci guddi gu nekk bu ñu guddi gi nag mooy tàmbalee fa jant bi soye ak fajar fenk diggante boobu mooy guddi gi foofu ci nga war a yéene yéene ji dogu su fekkee da nga xamul dara ci weer wi jàpp laa woor ba fara fajar fenk ba bët set nga doog a xam ne ah weer yi kat feeñ na biig bu dee ramadaan na ngay jàpp noonu bañ rek bañ a naan te du tee nga fay bés boobu ndax amoo woon yéene ja nga xam ne yéene ji moom paawu mënu cee ñàkk te yéene ji dogu lay doon te ci guddi ga lay doon daa bëgg wax ne bu fekkee yéene ci guddi ga nga njëkk ci ramadaan yéene yéene yooyu day far ci mboolem weeru koor yi nga xam ne bu fekkee amaatoo benn ngànt bu lay may nga dog maanaam bu lay may nga bañ a woor kon jenn yéene jooju doy na boo demee ba am ngànt la may nga bañ a woor moo xam jël nga ngànt la bañ a woor moo xam jëloo ko nga daal tàmbali nag kon guddi gu nekk nga yeesal yéene boppam ba li feek ngànt lay jeex ngànt la jeexee boo yéeneetee benn yéene mu doyati fekk ci guddi yépp booba ngay amaat beneen ngànt koor mi ngi tàmbalee fii fajar fenke ba jant bi so diggante boobu mooy koor gi bu jant bi xasee so diggante ba ak fajar di fenkaat moom la nga sañal lépp ci lekk naa nag jotee ka ngay séyal yépp da nga ko sañ bokk na ci sunay koor gaaw a dog te fekk mu wóor la ne jant bi sona booy natta ba jant bi sonaam sowut na nga moytoo dog bu fekkee noonu nga yooyu xamaatoo ci lu wóor faaw nga war a fay bis boobu ndegam xamaatoo ci lu wóor bokk na ci sunnay koor xëdd ba noppi yeexee ko nga xam ne fa nga xëdde ba noppi diggante moom ñuy salaatu man nga fay bàyyi daal juróom-ñetti minute mbaa fukk ndax yonente bi ne woon laa tasaalu ummati bi xayrin maa xajjaloo alfitra wa axaroo assuhoora rawaahu alimaamu ahmad sama xeet yi ci yiw ak jàmm la ñu nekk li fee ñu gaawe dog te yéex a xëdd xëdd moom dañoo bëgg nga def ko doon ci sa xiifoo maroo di foo dara itam nga mos dara rek te yéene ca topp sunna si doon naa ko wax léegi boo yeewoo ci guddi gi bëgg a xëdd waaye xamoo ba xam fajal fenk na am fenku da ngay jàpp li gën a woo jàpp ne fenk na bañ a lekk bañ a naan bañ a def dara lu yàq koor soo dëgëree bopp nag léegi lekk mbaa nga naan te gannaaw bi xamaatoo ci lu wóor ne boobu fajal fenkutoon faaw nga fay bis boobu boo xamaatee lu wóor nag ne boobu fekk sun fajal fenk nag kon baax na bisu sik sàkk nee nañu mooy barax lu amee ñaar fukki juróom-ñeent te xamuñ ci guddi googee lu wóor ci suba ci ramadaan ci ramadaan la bokk wala ci barax la bokk su boobaa kon da ngay bañ a woor bàyyi ba am ci lu wóor waaye boo nee mën naa ko woor rek ndax bu ci bokkee sama jaan wàcc du ma ci fayante kon def nga luñ aaya ba noppi te bu bokkee ci ramadaan du tee nga fay ni ñëpp ndax amoo woon yéen ci dogu boo ko wooree ci kaw rek daal maa ngi koy woor ci kaw amu amu ci lu wóor waaye bu ci bokkee man fekk woor naa ko rek kooku day du la doy yaa ngi ñëpp yem bis boobee nag nga xam ne moom xamuñu ci guddi ga ba xam weer yi feeñ na am déet bëccëg ba ci topp bu la neexee woor ko kooru ngàtt nga mooy kooru coobare yow ngir yàlla rek nee na bu fekkee ni guddi gi xamu woon ne weer yi feeñ na ba nga mën a yéene yéen ñi dogu ci guddi ga bi nga xëyee nag mosugoo dara lekk goo naanagoo waaye booba ngay door a xam ne rek weer yi feeñoon na biig ko it nee na bis booba du la doy mooy doo lekk doo naan da ngay mel ne ku woor ndax bañ a xotti or may ramadan te du tee nga fay bis booba saa yu génn rek yaa ngi ci bëccëgu ramadan rek moom donte fekkoon ne sax nga lekk mbaa nga naan moo nga fekk lekk woo naan woo ñooyam da nga daal di bàyyi ci saasa ndax bañ a xotti or may weeru koor wi su ko defee nag da ngay fay nag nee bu fekkee da ngaa nekkoon ci tukki ba teelaa woor nga ñibbi si fa nga dëkk nag te fekk jant bi sowut xam nga yóore woon na nga jekk kon da nga yóore ci sa bañ a war googee di lekk ak naan fay rek moo lay war waaye kenn la wax ne da nga ñibbi si nga nag léegi bàyyi lekk ak naan déedéet ba tey jigéen bu fekkee dafa amoon dareeti mbër ak mbaa dareeti wasin ba mu tee koo woor mu far laab nag ci bëccëg ba duñ ko wax ne ko ndegam léegi laab nga bàyyi lekk ak naan déedéet day lekk ak naan di rek fay rek lay def waaye kenn du ko bàyyi loo lekk ak naan yene boo dee koor koor goo xam ne yaa ko coobarewu du tax nag nga ne rek maa ko defal saa bopp daal jékki-jékki sañ koo dog déedéet boo ci xas si dugg lu war lay doon doo ko sañ a dog ci tey lu may nag nga am ngànt loo xam ne moom mënoo ko booleeg koor gi waaye boo mu ngànt moom ba noppi dog ci faaw nga fay ko ndax ba nga ko see tàmbali la soppi ko lu war ba tey boo ci doon tukki itam doo sañ a bañ a woor maanaam bu fekkee da nga doon koor kooru ngàtt nga di tukki nag ne ah man kat koor gi maa ko coobarew rek tax nga daal dog su boobaa faaw nga war koo fay ndax bu ñu xasee dugg rek la sottigul war teewul nag jàppal ne muy kooru farata muy kooru ngàtt ngaa ci yem boo waree ba ci biir nga àgg ci ngànt loo xam ne boo dugut dee day war moom nga dog ndax kenn du rey sa bopp bu fekkee ne itam boo dugut da nga am ab cër bu wàññi ko ci yow mbaa cër bu la mënoon du ko mën a ni kii da nga gumba mbaa da nga tax mbaa da nga lu mbaa yooyu itam faaw day war nga dog doonte kooru farata la ndax sàmm sa bakkan ak sàmm cër yi la yàlla dénk waru gar la ci yow maanaam nag boo dee koor koor coobarewu rek nga dog ca dog boo xam ne tëyoo ko da ngay sàmm sa koor bañ a lekk bañ a naan te du aajoo ngay fay bis booba te da nga am tuyaaba ja incha allah te xilaafil faridati ci wuteeg kooru farata kooru farata nag moom bu dee ci yoonu Malik boo ci juuboo itam du tee nga fay nde sax am nañu topp addis ba bu dee ramadan nga juubu ci maanaam nga dog te tëyoo ko it doo ci fayante waaye bu dee yoonu Malik moom bu dee kooru farata boo ci juuboo maanaam boo ko fàttee ba dog ko it du tee nga fay ko dafa wax ne boo wooree nag bu la neexee socc waaye nag soccoo bant bu wow moo gën a wóor ndax bant bu tooy soccoo bant bu wow daal moo gën a wóor ndax soccoo bant bu tooy la ko yàq mooy boo muucoo ndox ma rek war na ko koor gi dog ko daa wax ne boo wooree ci yoonu Maalik moom bañuñu nga nàmbtalu nàmbtalu ci yoonu Maalik yi nekk daal moom ñoom bañuñu nga war wu noppi nàmbtalu lu may nga ragal ne nàmbtalu faaw deret génn te mën nga caa jële tawat mën nga caa jële faral faatu su boobaa kon daañu bañ nga nàmbatalu waaye bu fekkee xam nga ne moom mucc rek moo cee xew su boobaa ñoom duñ ko sipp nee na bu fekkee da ngaa woor nag a wàcc jékki-jékki dikkal la waaye du yaa ko sàkku kon nee na du wàññi dara du yàq dara ca koor ga lu may nag nga tey ko wan na dara ca wàcc ma soo ko tey wan ci dara moom koor ga dana dog maanaam daal bu ñu nee boo wooree waccu waccu moo xam ne téyoo ko di yaa ko sàkku du wàññi dara ci koor ga day fekk mu wóor la ne dara delluwaatul gannaaw ba mu ñëwee ba ci gimiñ ga waaye bu ko wóoree ne moom am na lu ñëw ba ci gimiñ gi wëlbatiku delluwaat kon bu fekkee delluwaat ga téyu ko dana fay bis booba bu fekkee delluwaat ga moo ko tey dañ koy jàpp mel ne ku lekk mu war a kafaara ñu jàppaale foofu ne xaaxtandiku moom bi ñëwoon ba cetul làmmiñ wi mu mañ koo yàbbi bañ koo yàbbi itam daal di koy wann du tax dara war ko ca jooju wax moo gën a wóor ba tey lor yi moom lu mu bari bari doonte sax moo ko dajale ci gémmiñam ba mu dajaloo mu wann ko it wax ji gën a wóor mooy dara du ko ca war du tax fay war ko ca mbaa dara ba tey mënees naa jàpp ne soo wooree te fekk nga amee asma mbaa yooyu mën ngaa jëfandikoo pompe yooyu nga xam ne moom la ñuy woyofale asma bi ba tey jooju wax moo gën a wóor. jooju mooy nga sàkk wecc mi nga xam ne loolu taxaw ci yaa ko def ne mu dugal baaraamu ci gémmiñ rek ñor bi mu ñëw kooku moom fay dana ko jawax nee na bu fekkee ne dafa ëmb moom jigéen ji ñu toll ci jamonoy koor nag mu ragal ne. su wooree dina wàññi dara ci ëmb ba kon moom am na sañ-sañu bañ a woor am ñu ko diwal nag mu lele am ñu ne déedéet bi jar muy lele bi jar muy lele ji nag moo gën a wóor day fay rek waaye lele du ko ci war daañu wax lan mooy lele nag nee na kuy nàmpal ragal ne bu wooree doom dina ci amee ngaañ te amut lu mu ko mën a fayale keneen kooku nàmpal ko ba am na ko waaye doom ji moom moom yaay ji rek la nangu nanguwul keneen kon moom mi nàmpal mën naa bàyyi koor ga di nàmpal rek bu ko defee nag dana lele moom dana fay ba noppi lele boole ci kon kuy nàmpal te doom ji nangul ku may moom mbaa doom ji nangu na keneen waaye amul lu mu fay keneen ngir mu nàmpalal ko kon ndegam bu wooree dana du ngaañ ca kookee mi nàmpal kon day bañ a woor rek ba noppi nag bu àggee ci waxtu fay mën a fay daal di fay su ko defee nag du tee muy lele dañu wax la ba tey jigéen ja nga xam ne moom la ñuy fay muy nàmpal bu fekkee daa loru ci loolee ñu koy fay ca nàmpal ga nga xam ne bu ko amut dana loru kon mën naa bañ a woor tey nàmpal ba tey bu fekkee ne xale ba sax moom rek la nangu moom kooku nàmpal ñu koy fay ba tey kon dana jar mu bàyyi koor ga tey nàmpal xale boobee nga dolli ci koo xam ne day liggéey ñu koy fay te loolee ñu koy fay moom rek lay sukkandikoo amul leneen ba tey kooku sañ naa dem ca liggéey ba te bu demee ba amee ca lor rek daal di bàyyi koor gi maanaam day fanaanoo woor nag dem ca liggéey ba nag su demee ba nar a loru nag ngir koor ga daal di bàyyi koor ga waaye kenn du ko wax ne ko ndegam boo demee ci liggéey ba rek da lay tee woor faaw nga bàyyi liggéey bi déedéet ndegam liggéey bi ci la léppam aju amul fenn fu mu sukkandiku kon day yéene woor ba noppi nag dem ca liggéey ba su demee ba ca biir nag mu amee ngànt loo xam ne mënta ñàkk a dog nag mu daal di dog nee na góor goo xam daa magee magee goo xam ne di ko def ci dund yaakaaru ci mën a woorate waaw kooku kon koor wàcc na ko waaye sopp nañ muy lele bis bu ne rek mu génnee lele bi ñu lay bëgg a wax bu dee koo xam nag moom jamono yi mënta woor waaye yaakaar dina dina àgg ci ay jamono yu mën a woor day bàyyi ba ak jamono yooyu fay di ngay dégg lele ba tey nee na lele mooy rek buñ ne war naa lele yooñu bisee nam toll bis bu ne mu joxe ca ab liibar mbaa nga joxe liibar dara nee na boo amee baru koor ci weer wii bañ àggee ci weeru baraxlu wa mën ngaa fay ndax amu ci benn ngànt bu lay tee fay nga bàyyi nag ba weeru baraxlu wa jeex ba ramadaan ñëwaat te jotee fay bar boobu kooku nee na xam nga bar ba léegi wàcc la waaye ne dañ ci boole alamaan la léegi alamaan gi mu tax ko métti loolu mooy léeg-léeg gi waxoon léegi moom koy def mais boo àggee ci di fay bar boobu nga xam ne nga cee sàggan bis bu ne rek nga jox am mudd bis bu ne nga jox ak liibar muy alamaan ba wax ne nag koor moom bu dee ci wàllu gone dafa wuuteeg julli ndax julli moom nañ ko waxee woon bu amee juróom-ñaari at rek ñu war koo digal julli bu amee fukk nag moom ñu ko digalee mu bañ sax nañu ko dóor koor nag moom nee nañ waru ko te soppuñu ko ci moom ba keram muy kàllafe ndax jëf yaram yi moom balaa war gone mu dem ba kàllafe te la cay takk-takk mooy ba su borom di wax ne balaa kenn dugg ci ab néeg na diisoo muy néeg lu njëkk bu mu jekki-jekki dugg daa wax ne gone yeeg jaam yi moom am na yetti waxtu yoo xam ne buñ ko diisoo rek mu baax te mooy waxtu suba waxtu yeewute ak waxtu bëccëg bi nga xam ne xëy na kooko summiku ndax noppalu ak waxtu tërte yetti waxtu yi la waxam ne gone yeeg jaam yi bala ñoo dugg ci seeni néeg nañu yëg lu njëkk ndax mën naa am bu njëkkee jekki dugg fekk melo wa ngeen nekk bëggu leen ku leen ci fekke noona lu bokk teet yooyu moom gone yi mën nañoo jekki-jekki rek dugg bu dee mag nag moom day diisoo saa yu nekk ni ñu ko waxe woon léegi suñ borom ne nag gone itam buñ demee ba kàllafe dañu yëglu di diisoo ci waxtu yëpp bala ñoo dugg tegtal la ci nekkoon gone yi li fekk ñuy kàllafe jëf yaram yi waru leen buñ demee ba kàllafe na leen door di war kàllafe nag bu dee ci at ci yoonu Malik muy góor muy jigéen bu amee fukki at ak juróom-ñett rek kàllafe na bokk na ci màndarga kàllafe nag sax kawarug naq wala am maniyu bokk na ci itam bu dee jigéen gis deret li ñuy wax baax muy reegal wala ëmb yooyu yëpp tegtali kàllafe la maanaam ku amee woon janaaba ci guddi gi moo xam janaaba jotee ko waral wala gént moo ko waral waaye daal moom yéene naa woor rek sanguwul nag ba fajar fenk mbaa suba jot sax ñoo ci yemoo mooy dutee koor ga moom baax na xanaa rek nga farlu ci gaaw a sangu julli suba bala ko waxtu suba waa raw muy amee bàkkaar rek ba tey jigéen ju amee woon dereti mbërëk mu laab nag ci njëkk fenku fajar daal di yéene woor yéex a sangu nag ba gannaaw bu fajar fenkee la door a sangu kon koor ga baax na ñàkk gaa sangu ci guddi ga njëkk fenku fajar ga du wàññi dara bu fekkoon ne nag moom setul ci deret ja ba gannaaw fajar fenkee la door a set kon bis booba du ko mën a woor bu ko wooree itam du baax tey buñ ne bisub korite la day araam woor ko xam ne bu fekkee da ngaa jéemoon ci kumte ga woor ñaar ko ba ñett su wóoree ne moom suba weeri feeñ na rek bul ne man wëtaleguma te am nañu am nañu ne weeri feeñ it bu bañee ne weeri feeñ na rek moom da ngay daal di wooree rek te xam ne kon da ngaa jéemoon ca ca ca kumte ga nga fay bis bis ba bu ñee tey bis kori la moom day araam woor ko maanaam bisu tabaski bi bis fukkeel ba mooy itam day araam woor ko maa wax ne nag bu ñee tey la bisu fukkeel bi wax ne araam na ko ko woor ñaari fan ca topp xam nga ñoo itam dañoo dog tabaski yi ndax tabaski ñetti fan la bi noonu tey la fukk fukk ak benn fukk ak ñaar ci ñetti fan yëpp bisu tabaski lañ fukk bi daa gën a màgg rek kon ba tey ñaari fan ñooñu doo ca war benn loolu mooy da nga doon aj ba noppi nag def tamattu ñu waxan la nag ne la bu fekkee amu addiyu na nga woor ñetti fan su boobaa da nga mën a woor ñaari fan ñi nga xam ne moo sës ci bisu tabaski boobu le waaye bu fekkee defoo tamattu daañu wax lan mooy tamattu ak xiraan ci kanam bu soobee yàlla bis bi nga xam ne mooy bisu ñeenteel ba ci doo tàmbalee wàññi ci bisu tabaski bi ne bi nga woon tey jii di dibéer mooy bisu fukkeel suba mooy doon ñaareel gannaaw su ko nekk ñetteel bi ca toppaat nag mooy ñeenteel ba waaw moom itam naka noonu koo xam ni soroo ko woon mbaa nga nekkoon ci koor gu toftaloo bul ko woor lan ngay coobare ngir yàlla rek bul ko woor lu mel na nga koo ni soroon nag war koo xam ne nga koo ni soroon woor naka jekk mbaa nga nekk ci koor gu dul susaloo moom kon baax na nga ko woor waaye bu dul loolu rek kon bul ko woor